denc nag moom Mouhamadou Ndiaye jërë ngeen jëf lu ëpp junni milliard soleil national nee nañu moom la waa FMI ñu xëy ci Serigne Nafa jébbal ko Sénégal nataalu président national di Macky ak bu ndaw sii di Christina Georgieva mi jiite fonds monétaire international moo nekk ci xët mu njëkk bi koppar yooyee yéenekaay bi nee nañu ndimbal mu di appui yu jëm ci jàppale njiit réew Macky ci politique économique am le quotidien tudde ko ndéwénal lu waa FMI ngi toll ci 1300 milliards yi ne budget mille milliards ngir déwén Sénégal décroché na lu ëpp milliards ci waa fonds international statut spécial bu Touba ak autonomie bu sang bu tedd bi di Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru bëggal dëkk ba mooy li l'observateur xëye ubbil yéenekaay bi mi ngi ciy taataan xalaat ak leeral yu bàyyee ci Maam Cheikh Ngom di spécialiste ci wàllu aménagement territorial décentralisation gouvernance gestion foncière ak planification sunum réew di Sénégal Walf Quotidien amal ca parlement européen kilifa ya fa teewoon Walf Quotidien nee nañu waxtaan nañu ak maître Aïssata Tall Sall ministre affaires étrangères bu réewum Sénégal ci coowal mandat bu Macky Sall bi naka noonu mi ngi ñuy xibaar ne am na lu mat ñeenti téeméeri maire ak juróom-ñaar fukk ak ñaar 472 maire yu def ay pétition signé ko ngir bëgg mu doon candidat samp am dëndëm bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi mel ne ku naan ñu du yombee noone ne plateforme ci troisième mandat ba mu koy jëme kaw ci kaw xët mu njëkk yéenekaay bii di Tribune ba tey mi ngi ñuy wax ci lu jëm ci tabaski gi wër borom kër yi war leen lànk ne du leen wàcc ñu bari ci ñoom borom kër yi jamono ji ci ak jaaxle la ñu nekk ndax tabaski gi ak i dépense am xar seer na ci réew mi ndugg ma ñu koy toggee seen njëg di gën di yokk saa yu ñu xëyee ci marché bi te xotti xale yi ñëwagul ci lii la journal Tribune sukkandiku ba tax mu gis ne tabaski gi mooy fête guy jekkali père de famille yu bari Sud Quotidien moom li ko jaaxal ci tabaski gi mooy ñaari julli yi am ci réew mi nee nañu tàggal réewum Sénégal ak ñaari tabaski jaam lottu na ci nañu ci réew jullit yi am ci àdduna bi daanaka ci Sénégal rek la ñu koy gis ñu gis ba tey ci xët mu njëkk Sud Quotidien xibaar beneen buy wax ci tabaski gi mu di bu ñu tabaski ba ci ëllëg sa maanaam ci àjjuma ji njiit réew mi Macky Sall jël na dogalub def ko feet bu leen dara yàqal seenug tabaski feetu leen ba mu neex kàddu Ousmane Sonko la ci réew mi Quotidien journal bi nañu ci déclaration bu mu doon def démb ca la ko wax Walf Quotidien nañu yemu ca ne moom président bu parti Pastef fi di Ousmane Sonko jox na rendez-vous ay mu wax leen ban taxawaay ban stratégie la ñuy teg ngir jàmmarlo ak Macky Sall ko nguuram ci jamono jooju jooju l'observateur mi ngi mooy responsable parti moo di moom waa dafa woote woon ab réunion bu parti Pastef ci seen kër ga nekk ca Linguère magam ju ju mu bokkal kër ga ne réunion bi nga fi bëgg a def du fi amee ndax yëgaloo ma ko tàggoo te man ak yow ñoo bokk kër gi ñu nekk ca di coow dënn yi jóg ca la rakk ji yëkkatee mag ji ba ca kaw dóor ko ci suuf ba damm pooj ba ñu jël ko yóbbu hôpital Magatte ñu defal ko certificat médical bu ñetti weer ci la bu Linguère demee jàppi waa ji altine ba léegi yéenekaay bi nee nañu ma nga ñu téye ca kaso bu Louga xibaar yi gën a ci fës nag tabaski bi ñuy waajal imaam xatib bu njabooti xawaan mbay euh, moom moom euh, tey lay amal euh, jullib tabaski bi ca grande mosquée bu Mermoz bu juróom-ñeenti waxtu jotee lay doon coordination des musulmans du Sénégal naka noone tey lay julli Sénégal kon daal sikk sàkk amu ci dañu amal jullib tabaski ci xaajaloo comme sax mi faxal di amee lu ci ëpp tey nag di ajuma ajuma bu ñu dëgg ma dafa doon férié di ay kaddu wala dëkk décret bu jóge ci njiitu réew mi mu na a nokk nag weekend weekend bu xaw a yàgg ngir daal fexe ba doomu sénégalais mën a joge ci ndakaaru am jot dem julleeg seen njaboot euh, ci lu tabaski bi le lu àndul benn pression waaye tamit fexe ba ñibbi si ndakaaru di ay kaddu ministre du travail di Samba Sy dañ ko dégg ci biir xibaar yi dina ay kàddu Ousmane Sonko ñeel askanu Sénégal ci jub tabaski bi daal dafa daal gis na moom mi jiite Pastef na ñëpp dem tabaski ci lu àndul benn problème na ñëpp ànd ak jàmm dem seen njaboot waaye nag incha allahu taala bu tabaski bi weesoo dina yëkkatiwaat ay kàddu wax fu ñu bëgg a jëm ak taxawaay bi nga xam ne dañ ko bëgg amal ci mim réew lu mu néew néew juróom fukki doomi aadama lañ teg loxo ni ki démb ci ngoon ca sali ña nga woon ci ab gaal bëggoon a wutali Europe ña ñanga ca commissariat bu Saly ñaal pàcc xi ba tàggat yaram di technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy ci digital ba salaamaaleykum leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM coordination des musulmans du Sénégal ak njabooti rawan mbay tey lañu amal jullib tabaski ci ajuma ji incha allah ci kanam lay doon din tabaski boo xam ne euh, sikk sakk amu ci dafa am ci xaajaloo ci mim réew naam sax ñu bëri euh, ci jullit ñi fii ci Sénégal ëllëg la ñu amal aydil kebir Euh, di alxames ajjuma nag euh, incha doon jour férié maanaam kenn du ko liggéey di ab décret bu njiitu réew mi dogal boo xam ne dafa ñëw ngir daal fexe ba doomu Sénégal yi jóge ci ndakaaru ci lu ànd ak benn pression fexe daal ba dem euh, julli ci seen i njaboot ci dal di ay kàddu Samba si ministre du travail ci téléphone beeg Mamadou Makhba. donc duñ ne rek ne à chaque fois bu mel noonu fête lañ koy def. aajowul dara déedéet il faut président ci boppam seet bu seetee mu jël décret bi loolu di benn ñaar tam euh, loolu pour mu mën a nekk il faut que mu nekk bés boo xam ne dafa dox diggante fête euh, bu jour boo xam ne du jouru liggéey ak euh, jour boo xam ne jouru tabaski la maanaam comme ajuma ji ni mu nekkee diggante alxames bi ak ak samedi bi loolu moo tax ñu mën a déclarer jouru vendredi bi jouru férié bëri na ñoo xam ne fi ñu koy feetoo bokkul ak bërëb bi ñu liggéey ndax nag liggéey moom daf ñuy ñaare ñu xaw a sori suñuy njaboot euh, baax na nag ñaare bu lu mel ni amee njaboot bi daje njaboot bi pour mu daje ñaare tukki day am dina jafe effectivement ne nga tukki foo xam ne di nga jël lu mot euh, ñetti téeméer ñeenti téeméer juróomi téeméer kilomètre nga sore ko sa bërëbu liggéeykaay ba pare nga bëgg euh, ci guddi gi si boppam nga dellu si guddi feet moo tax yooyu yëpp le président di natt ba daal jàpp ne jaadu na ñu may liggéeykat yi ñu mën a feetu cib daal bu si yàlla yóbbee bu semaine bi jeexee ñu delluwaat seen bërëbu liggéeykaay aljuma bi moo dox diggante alxames bi ak samedi bi donc foofu mën na nekkoon mais bu fekkoon ne lu mel ni talaata la wala altine début de semaine loolu pour nga def moom boo xam ne day may euh, kat bi mu boolee euh, dimanche bi ak samedi bi ak yeneen ñi fan yi day jafe weer gannaaw bañ ko condamné moom mi jiite Pastef di Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu ne daal doomu Sénégal yi bu leen kenn yàqal seen julib tabaski nañu dem ànd ak seen i njaboot ci lu ànd ak jàmm ak salaam waaye nag muy ñaan doomu Sénégal yi daal ànd doon benn euh, xol yi yàlla tàpp ko waaye tamit daal moom ne bu jullit bi weesu dina yëkkatiwaat ay kàddu ngir xamle askan wi daal fa bëgg a jëm ak taxawaayam ci réew mi ñu déglu Ousmane Sonko. lépp ñu teg ko ci rafetal. kon yàlla na ñu yàlla may xol yu rafet yàlla nañu yàlla may yéenante jàmm defante jàmm defalante lu baax te moytu safaan bi tabaskee ngoog yéen ñëpp maa ngi leen di souhaiter ngeen def un une très tabaski bu ngeen gisee ma génn wax nag xam naa ñu bëri tey yeeweekooguñu ndax ñi ngi xalaat président Sonko na ngeen dem dem feet seen feet bu leen ko kenn yàqal na ngeen fireeku na ngeen ko dund ak seen njaboot ci ni ko diina eh, santaane bu feet bi weesoo nag bu sa yàlla dinaa jàkkaarloowaat ak sénégalais yi waxtaan ak yéen nag ci tolluwaay réew mi ak la ñuy dëgmal waxtaan ak yéen ci lan moo ci war a doon suñu taxawaay tey du woon loolu mooy jubluwaay bi waaye di gën a soññ ñëpp rek ñu gën a takk suñu ndigg gën a soññ ñëpp rek ci ñu gën a gëm li tax ñu jóg mooy luy defar réew mi ba faaw luy defar réew mi teg ko ci màndute teg ko ci sàmm sàmmante suñu biir sàmm alalu réew mi gànnaaw buñ ko téye ci biir réew mi respectante kenn ku nekk ci àq moroomam ak yellefu moroomam fexe ba waa réew mi mën a jëriñoo réew mi balaa keneen di ci jëriñoo kenn ku nekk ci ñun na ci gën a farlu gën a takk ndigam naam ñoo ngi ànd boobu ba léegi projet nag bu mel nii lu ne mën na cee am am na ñoo xam ne ñaa ngi doon ànd ak ñoom àndatuñoo ak ñoom am na ñoo xam ne rocceeku nañu parce que dañoo ragal o dañ leen dig wala dañ leen jox loolu buñ ci jàppal kenn dara ndax wàññiwul dara ci projet bi. jullib tabaski bi ONAS nag euh, mu ngi euh, tàmbale am na tey ay bés ab campagne ngir daal fexe ba setal bërëb yi ñu jullee ci capital bi directeur bu exploitation bu ONAS nag euh, ne daal askan wi ñoom it naka noonu daal lañ fexe daal bay moytu di sandi yoo xam ne ay mbalit la. Euh, gannaaw julli pa tabaski euh, di ko def sax ci biir égout yi ndax mën nañ nay gàllankoor rawatina sax bu nawet yegg see Pedre Sy directeur bu exploitation bu ONAS ci téléphone beeg Mouhamed Thio Diop. na depuis semaine passée xam nga dañuy mu jege see donc dañuy nettoyer réseau bi nga xam ne yëpp mi ngi nekk ci boobu lieu de culture am na lieu de culture xam ne dañ ko pensé ñu ne da ko grande mosquée réseau bi yëpp dañ koy nettoyer boobu exemple bi ñu daf ñu def au niveau de la mosquée omarienne fi nga xam daal yaa des grandes mosquées où les gens doivent julli dañ fa julli ñun ko réseau bi nga xam ne am na am am na ko pour éviter daal bu ñuy julli que mu mën a am des nuisances loolu moom chaque année dañ ko def année bi aussi demandé nañ ko depuis la semaine passée vraiment damay profité ci sa plateau di leen wax ni xam nga ñun ñi ngi dugg ci ñi ngi dugg ci opération pré-hivernale où lépp li nga xam ni réseau au privé la on a def na entretien bi boo nañ soixante-dix-neuf kilomètres heure yooyu yëpp bu ñu ko defee nag fekk ndox mi bu ñëwee pour mu mu pour bi bu gars yi rey ba pare seen yëpp dañ koy jël dugal ci réseau bi yaakaar ne seen bopp seen kër yi baaxul ñi ñaan nga ne réseau euh, ko moom des ba tey ci tabaski bi daal gannaaw accident bi amoon weeru janvier bi weesu ca Kaffrine ba rota lu mu néew néew fanweeri bakkan gouvernement nag jë jël na ay dogal daal di tere ñi woyaas yi guddi gën ndakaaru ca garde boo maraîcher nag transporteur yi daal euh, ne euh, faw ñu dem euh, voyage guddi bi ña daal Euh, ci jamono jile euh, warul ñàkk waaye nag euh, am na loo xam ne daal da koy da leen gàllankoor ndax post de police ba ñu mënta dal dañu fay diggante junni ba ñett junni Pikine Samatou Ousmane Diallo. dara waaye ñaanuñu leen dara ci kàddu gu dëgg ndaw apprenti bii di nëbb aw di wax ni gouvernement bi moo waroon a ànd ak compréhension ak yërmandi daal di autoriser voyage guddi gi ci jamonoy fête bi. Koore Dieng chauffeur bus la mu ngay daal di daw diggante Dakar ak Kolda moom it sàmmontewul ak mesures yi nga xamante ne si ni gouvernement bi daal na ko tegoon teg ci nag di nakarlu koppar gi nga xamante ne si ni way dàq dare mu ngi leen koy laaj buñ sukkandikoo ci ñoom bi ci guddi bi ma jógee Tamba intersection Kawoun ba dalaa mujj xulóog alkaati bi boobu damaa mujj duraate Kaolack ndax bi ma jógee Tamba damaa ma egg si Kaolack rek vingt cinq mille la graissé barke Seydina Ahmed ma egg si waat Kaolack graissé waat fa quatre mille muy ñaata am ñoo ni téye ci yoon nañu boo joxewul junni wala boo joxewul quinze mille doo dem boo joxee nan lay bàyyi nga dem ku joxewul ni sóoraate la ak client la ay atam war a ci fanweer la mu bëgg mooy daal di passé fête bi ak waa këram bu sukkandikoo ci moom jamono ji moom voyage guddi gi lu mënta ñàkk la. non voyage mu ñàkk actuellement yi ñu fekk ko muy yeb bagage yi di waxaale njëg li ak client bi di door a yegg si. Alla di ñaar ci gouvernement bi mu daal di leen di may ñiy daw guddi ba jamono ji weesu naam sax nag li muy ñaan ñi moom jëlal na ko boppam ba noppi nan ñu jàppale daal nan ñu may ñu cinq jours arrière nan ñu des ci feetu tabaski bi matatu sax nag ñaari bés yenn chauffeurs yi ñoom sàmmantewuñu ak mesures yi nga xamante ni seeni kilifa yi jëloon nañu ko ngir rek daal di aaye voyage guddi gi seen ay clients daal leen ci jàppale am ci xibaaru tàggat yaram yu ñuy tàmbalee football ci plage maanaam beach soccer ak Jeux africains de la plage yi nga xam ne ca Tunisie lañ koy daal di amale ci ndorteelu compétition am ñoom Sénégal daal di daan daan yu diis ki nga xam ne moom moo di Kenya 12-1 moom lañ di daal di daan ci 12 bi yooyu noonu kii di Momar Diagne ab quadruplé la ci daal di am ñile signé ci ab doublé di Madione Laye ak Jean Alpha Diouf ki nga xam ne moom di recrue bu beesu tanière bi di Mokhtar Koyte jot naa mos ci bi yooyu le naka noonu Ousseynou Faye itamit daal di tëj li nga xam ne moom di spectacle boobule ñoom gaynde yi kon daañu wëyal ba tey li nga xam ni moom di boobule xam ne ñoom ñoo di Libye yooyu lay ñaari match wax li nga xam ne moom moo di coupe du Sénégal nga xam ne tirage yu quart de finale yi amal nañu ko ba cay gën a fës dina dox ci diggante Guédiawaye ak Casa amitié moom CNEPS lay daal di dalal Stade de Mbour di fekki HLM waaye bile match nga xam ne dañ ko reprogrammé waat ñu koy amal foofee nga xam ni moo di ca Stade Lat Dior bu Thiès maanaam huitième de finale bi dox ci diggante Pikine ak Jaraaf juróom benn fan ci weeru juillet lañ koy daal di amal bu 16h jotee ñu jàpp ne rek ku ci daal di daan gannaaw tirage bi dina jogan jongante ki nga xam ne moom moo di AGEL ci quart de finale yooyu le football wax ci mercato des lions yi nga xam ni bañ cay daal di gën a jàpp moom moo di défenseur Tëngéej bi lay di Cheikh moom ma nga xam ne day di jubale ji ta Tanzanie gannaaw ba mu juboowee ak lii di Azam FC boobule club nag fekk fa ki nga xam ne moom moo di ancien entraîneur di Youssouf Dabo naka noonu itamit ancien coéquipier am di Malick Ndoy moom mi nga xam ni ñëwoon na ci équipe nationale ci a bees boobu di Azam FC ngir yaakaar dellu si ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jëm foofe ca Côte d'Ivoire gannaaw loolu jubali ji fi nga xam ne ni moom moo di ca Maroc ndax foofee ñu ngi fay wëyal Coupe d'Afrique des Nations U23 yi ni ki mardi gi ñu doon wëyal ñaareelu bëccëg bi ci poule A bi ñu jàpp yile ndam gine moom day daal di daan Congo ñetti bal ci benn ki nga xam ne ni moom moo di Maroc moom mii dalal boobu la compétition day daal di duma duma yu diis kii di Ghana juróomi bal ci benn ni ki mercredi gi ci la ñuy daal di wëyalaat ak poule bi maanaam deuxième journée di dalal Mali Congo moom di jongante ki nga xamee ni moom moo di Niger basket féminin ñu pëtaxlu ci itamit ak jigéen ñi nga xamee ni playoff game 3 bi ñu ngi ko doon wëyal ñu jàpp ni ki nga xamee ni moom moo di champion en titre bi lee di AS Ville de Dakar moom day daal di daan jaraaf 49 40 ci yooyu la demi-finale maanaam game 3 bi di bel ci boobee waxtu ñoom itamit doon amal beneen bel ci diggante ki nga xamee ni moom moo di Jeanne d'Arc ak ñii di waa Duc ba tax na sax ñi nga xamee ni ñoom ñoo di waa Jeanne d'Arc ñooy daal di éliminer ñii di waa Duc 64 tax na ñoom ñi le amal final gu am solo seen diggante ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di waa AS Ville de Dakar des ci basket boobu ndax afro basket féminin itamit ñu ngi koy waajal nga xam ne dana tàmbali ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet doom juróom-benn fan ci weeru août ba tax na Sénégal nekk ba tey ci préparation ci mardi gi nag gannaaw ba ñu tëjee séance bi ci suba si moom Moustapha Gueye daal di xam ne ni day bàyyi Lions yi ñu dellu ci seen njaboot ressourcé waat dellu si àjjuma ngir ñu wëyal liggéey bi maanaam dañuy tabaski ji waaye nag ci yooyu la kàddu itamit fësal importance su match de préparation laata Coupe d'Afrique ndax ci atum 2021 foofee ca Cameroun liñ ko ñàkk am bokk na ci li leen gàllankoor ci boobale Afrobasket moom Moustapha Gaye ñu teewlu ko je pense que la famille. defe naa ne lu baax la ñu dem ci seen i njaboot ngir mën a profiter ci ñoom dellu si waat àjjuma ngir ñu woyal li nga xamee ni moom moo di liggéey bi am na yaakaar ci ne nag daañu am lu ci lu toll ci ñett ñeent ba juróomi match ndax tournoi la boo xamee ni lii di ay promoteur ñoom ñoo ko organisé daan nañ ko def fi nga xam ne moom moo di ci Chine waaye dañ ko daal di toxal depuis Covid bi le fi nga xam ne moom moo di ci États-Unis booy xool ci atum 2021 dañoo dem ci encore loolu la waral bile at def nañ suñu kéemtalaay kàttan ngir amal ay match ak nag ku mu munti doon benn problème rek moom moo nar a am nag moo di décalage horaire bi ndax booy xool dañoo nar a jugee États-Unis jubali ji fi nga xamee ni moom moo di fële ca Rwanda ca Kigali waaye nag jànkonteeg boobu le problème moo ma gënal fuuf bañ a am ay match ndax loolu sax daañ ci mën a jug taxaw ci ak suñuy précaution waaye daal moo ma gënal fuuf ñu ngay taataan nag ñu ngay fëgg ay réew pour li nga xamee ni moom moo di ay match te ba tey amaguñ ci tontu bu ñu gënal waaye préparation bu euh, ba tey ak ballon orange boobule wax bi la yoon ci góor ñi gannaaw ba nga xamee ni kii di Jean-Jacques Boissy ak Samba Dali ñoom dañuy daal di wutali ji championnat européen yi ñoom ñi nga xamee ni ci AS Douane bi la ñu daal di nekk Samba Dali Fall juboo ak lii di Joëf Omekour nekk foofee ca national 2 gannaaw basketball Africa League bi le te itamit dana fa doon ñetteeli sénégalais ba fay daal di signé gannaaw moo fay ak Pape Moustapha Diop moom mi nga Boissy ca France lay daal jubale jubali ji waaye moom beneen équipe ak beneen division ndax national 1 lay daal di jubali ji d'accord ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Aurore Vitré moom nag ay kàddoom lenn la li mu signé AS Douane ba bokk ci ñu gën a fës ci basketball Africa League bi yokk naa tax garaadam jugaat kon du benn yoon lu muy rëccu lu muy ñëw ci li nga xam ne moom moo di AS Douane ñu teewlu waxtaanam mook Soda Thiam. Euh, damay jàpp ni lu may liggéey moo moom may moom may fay jàpp ni defuma choix bu bon ñëw AS Douane parce que joueurs yi ñoo may jàppale coach ñoo may jàppale pour ma progresser. pour ma mën gën a sama sama talent. Euh, di BAL bi bokk nga tamit si joueur yi ñu fa euh, ràññee bu baax loolu lan lan lan parce que loolu dafa fekk euh, daf may yokk jom ma gën a xam ne lu ma liggéey moom may fay te tamit dafay tax ma. ma gën a kontaan si choix bu ma def ñëw AS Douanes parce que damaa nekkoon Espagne aw moon temps de jeu ma ne bàyyi ma ñibbi si Sénégal am naa chance si baal bi jéem a def wane lu ma mën pour mën a am beneen contrat yàlla def na tey ma am beneen contrat. mën nañoo nekk ni loolu rëccu woo parce que am nga beneen euh, contrat ak beneen club. waaw rëccu ma ma tey sama ñëw AS Douane parce que objectif yi ma si bëggoon yëpp à part bañ jël final bi laa fi amul mais yàlla def na macha allah am na beneen contra pour delluwaat Europe continuer waat sama carrière. lan lañ mën a jàpp contrat euh, bi un an la pour saison 2024 2025 bi la incha allah euh, équipe Vidré équipe bu première division nationale une la. France équipe bu accueillant la parce que a jot ay message fans yi ak ay ay magum jëm di ma message di ma accueillir. mbokk yi kon li moo gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram gi ci rajo. fi